salaamaaleykum di Freezy la number one lady waaw di Freezy nag euh, benn benn benn ghetto girl la benn xale bu jigéen bu juddoo ci ghetto Géejawaay waaw bon nii nii nii maa ngi nii doon artiste avant j'étais danseuse mais léegi yàlla def li gën ma opté nekk rappeuse ba yàlla may ma ci yoon maa ngi góorgóorlu di avancer. nit ku nekk ak sa destin te euh, ku nekk euh, li ngay dooni suba yàlla kese moo ko xam waaw danseuse laa woon doon euh, fecc fii nii ci salle fii ji dance bu Akon jiite woon ñu nekkoon ci ay fecckat man ak sama DJ sax ñëpp ci biir woon après ñuy dem di gën di dem ma dem ba xam ne lii du sama yoon hip hop laa bëgg musique laa bëgg di wëy te aussi yàgg nañ ma yàgg nañ ma wax ni genre sa flow nice na mën nga di rap parce que su ma déggee son genre ay son malal ou bien son géejawaay ou bien n'importe quelle son dama ciy toppaat ba mu jeex après ma sob ànd ak euh, waa Tiri Tiri Pass daan dem concert yi tout may ànd ak ñoom bay 4 heures du matin di dem di ànd ak ñoom ba euh, benn jour yàlla boole ma ak euh, ku ñuy woowee Jo bu réel pro mu ne moom mais yow li ngay woy di woyantu woyantu pourquoi pa nga essayer def benn son nga essayer nga tester léegi bu dee yow lii nga bëgg après nga continuer ko fekk yàggoon naa ka bëgg mais aw ma woon opportunité wu ku ma may doole pour ma def ko après ma jéngu mooy euh, di Freezy number one lady bi son boobu noonu jotul jotul jotul def euh, kii noonu jotul génn mais euh, incha allah dinaa ko génnewaat naa ko remixé defaat ko noonu laa def ba dugg ci ba nekk ci am ci fulla ak fayda aussi gëm ko ba yàlla euh, may ma ma yegg si nii. ci góor ñi sax dañ koy gis parce que damay gis sax ay rappeurs yu góor. ñu naan leen dem leen wuti job parce que am nga game bi gaawul fay patati patata bokkul ak mbalax patati patata mais euh, damay ne ku nekk ak li nga bëgg aussi doon jigéen aussi taxul ñu leen minimiser ou bien ñu lay wax yow fi nga war a teg li nga bëgg yow yaa ko xam man ça m'est égal ci li li muy li muy wax ci mbedd ou bien leneen man li ma intéressé mooy sama yaay bu njëkk bëggul woon mais ba mu demee ba gis ni man lii laa bëgg aussi lii laa opté pour def mais da cee ànd ak man te mu ngi ciy gis ay résultats ba samay som sax mën naa ne moom da koy réciter nii comme leçon parfois dañuy toog ambiance samay sœur ak sama yaay sax ñuy def muy wëy ñuy fecc ou bien may wëy xam mu koy yëg ne ma yaa dàq rap Sénégal sama yaay daf ma koy wax mais mbokk yeetu tant que gisuñu xaalis ou bien gisuñu nag nga dem ba am succès nekk ci kaw duñu mën a gis li ngay def te mën naa ne hip hop bi man ci laa yaakaar ci laay dawal oto ci laay amee kër te ci laay defee lépp ci laay voyager ci laay def sama yaakaar ci laa ko def te incha allah gëm naa ne dina baax. deux mille dix ci laa commencé dëgg-dëgg génne son ci laa dugg studio prise sound comme bi ma leen waxoon muy number one bi di Freezy number one lay di ak benn intro xam naa ne naa la bett sumay gane si ci laa koy doog a génne ci euh, ci la yàlla def aussi mu am benn euh, concours bu tuddoon Citizen Mike bu waa Y'en a marre tegoon après euh, sama benn xarit sama mag sax laa sama grand bu tudd Tippa mu inscrire ma yéegu sax damaa jékki ne ma feeñ nga ci liste bi dem nga final te ins boobu noonu j'étais enceinte de trois mois presque léegi final bi dem dem ci demi final bi xaw ci final bi mu yàgg lool mu tombeek aussi ma am seen mois léegi ñu ne ma bàyyil ma ne non duma bàyyi parce que mooy loolu man maa ko opté pour def li empêché wu biir bi empêché wu ma pour bañ dem ci final bi après ma dem final yàlla def li gën moo joo jël ko maa ngi koy encouragé aussi taxul aussi ma découragé taxul ma bàyyi tax na ma am ma am ci euh, gis-gis gu bëri aussi ma am ci aussi xam-xam rencontré ci ay affaires découvrir naa si aussi ay nit ak ay talent am nga mu gën maa mu gën maa yokk wàññiw ma dara aussi parce que moo ma gën a yokk sax ba tey ji ma am opportunité aussi inscrire at flow up ba dem final. xam nga lu jóge ci xol moom saay su génnee ci xol lay du duggaat te wareef dafa nekk li nga xamante ni morceau bi nga xamante ni. ci xol la jógee te aussi mën naa ne du li ma dund kase ak li samay morom aussi dund waaw noonu laa ko mën a waxee parce que saay su ma koy ba tey jii ak lu mu lu ak lu bët cent ans sax su ma koy woyaat day dugg sama biir xol parce que ci xol la jóge kon ci xol rek la mën a duggaat li ma dund la li samay morom dund la te aussi am na jarul muy sori so ñoon mu yem foofu balaa jooy di ñëwaat sax <laughs> boo nekkee surtout ci game boo xamante ni góor ñi ñoo ci ëpp waaw ah, wax dëgg fa yàlla boo ñemewul risque moom da dem da toog da xaar du question que dama am fit non non damaa xam li ma bëgg te aussi daa am lu ma bëgg ku nekk ak li nga bëgg n'est-ce léegi nit boo gëmee dara danga ciy def fulla ak fayda nekk ci nekk ci bu baax parce que nee nga moom moo la mën a may lépp li nga bëgg a am ci àdduna donc danga ko war a respecter aussi jox ko li mu moom jox ko li mu laaj loolu kese la lu si des lépp deuxième la ambiance sa kese ama bandi bandi lu garaaw garaaw lu amul solo quoi. waaw ak fu ma mënti dem ci àdduna nag lenn kese la du ma judd ci torox màggee ci nartee deewee fu ma mënti dem même concert damay xalaat sama ginnaaw xalaat sama waa gaale xalaat sama yaay xalaat sama doom xalaat samay rax aussi même bu dara may taaw te même bu ma nit ñi deful kilifa man kilifa laa sama gaale donc dama war a joxe lépp li nekk ci man lépp dama ko war a joxe même bu jaree ma dee ci kaw seen bi dama koy def amul dëx amul pata amul rëy down amul lenn lu ma war a joxe dama koy joxe après mu jeex ah. su ma wàccee nice cool ku nekk aussi ak sa live ku nekk ak euh, li la tax a jóg parce que am na ñoo xam ne dañuy rap pour buzz am ñoo xam ne dañuy rap pour tour am ñoo xamante ni leneen moo leen tax a jóg man nag loolu yëpp fekku ma ci loolu fekku ma ci man li ma bëgg la man li ma bëgg la aussi te ñaanu du nit moo ci yàq sama xel comme ni ma ko waxee sànq rek man na ma sama yaay nangul rek leneen lépp deuxième la te aussi ñoom mën na am aussi seen situation moo leen euh, mayul ba ñu yegg fi ñu bëgg yegg parce que am na ñoo xamante ni jëkkër après moo leen di baare am na ñoo xamante ni li nit ñi di wax moo dem ba soof leen ñu gedd am na ñoo xamante ni dañoo amatul projet ou bien dañoo mënatul bokk moo tax ñu bàyyi loolu kese la man loolu laa mën a mais man xam naa ne man lu ma dugg dama ciy dem ba mu jeex tàkk tàkk tàkk loolu noonu ñuy laaj kooku man mii nii toog la man mi toog maay taxi couronne bi te yàggatul incha allah lu tuuti la rek amagum naa bopp tànk ci des ma moom gem bi incha allah dara du ma téye te faalewu ma kenn ci lenn l'essentiel li nekk ci man dinaa koy génnee ba mu xooluma ki ciy bëgg ak ki ciy bañ parce que nit booy def dara di ci sóoraale kon yow parewoo man nag sóoraalewu ma ci dara lu nekk sama xol ak lu ma war a génnee message yi nekk ci man dama koy génnee donc couronne bi sama couronne la man lay xaar te maa ngi ñëw incha allah képp ku ne ci kaw wala nga foog ni yaa ngi ci kaw xamal ne di Freezy mu ngi ñëw indi lu dopp lu graaw. waaw waaw loolu moom façon de parler la te lu passé la xam nga nit saay sooy dund da ngay jéem di gën di màgg nest pas terewuñu ko aussi ci hip hop mais du aussi respect je sais mais dama gën a màgg loolu dépassé naa ko tegee naa ko boor maa ngi ci yeneen genre ambiance la woon rek defuma ko woon pour nit ñi di yuuxu ou bien di ree dafa nekkoon li nekk ci man ma ko doon génnee mais def naa ko doo je pas trois fois après mu am ñu mu neex am ñu mu neexul te boo toogee nit ku ne boo toogee xalaat sa njege naay toog xalaataat di nga xam lu correct ak lu correct ñu ngi euh, répété man ak sama DJ muy DJ Mami ñu ngi répété bu baax ñu ngi def lu ñu mën aussi ñu bañ koo yenu tamit moom moo daaneel ñu parce que concours la aussi rëy na rëyul parce que faj na gàcce te mën na la jox opportunité yu bëri aussi te Flow ku ko dégg xam ni concours bu mag la fii Sénégal waaw ñu ngi ñaan yàlla aussi mu may ñu ndam li parce que ñu ngi doog a dem flow up te ñaanuñu yàlla delluwaat ci ginnaaw euh, déwén bu ñu sañoon dem ren jëli suñu cinq millions continuer suñuy projet nekk ci yeneen loolu moo ñu tax a jóg. gars yi ñu ngi ciy jàpp bu baax surtout fii ji pop ak euh, suñuy morom fii ñu ngi ciy jàpp bu baax aussi t-shirt yi génn na gars yi ku nekk a ngi jënd xam Facebook affiche yi ak ñu ngi koy partagé bu baax aussi xam nga jàpp ci job bi ñooy jël oto yi ñuy jaay t-shirt yi ku nekk xam nga ak fi nga nekk parce que Guédiawaye ñun ñëpp benn lañu même bu ñu bokkee dem aussi final ñun ñëpp benn lañ parce que après ñun ñooy nekkaat ñooy àndaat ñooy delluwaat suñu koñ ku ñu bëgg a xaajale donc ñun ñoo ko war a bañ duñ ko mës a nangu final la rek nag ku ko mérité moo koy jël euh, ñun nag ñaan nañ yàlla incha allah. ñu indi fi ndam li bu dee day ñëw géejawaay mu ñëw ci ñun te ñun ñoo koy jëli sax incha allah parce que ñu ngi def lu ñu war li war ci flow bi yëpp ñu ngi koy def ñu ngi répété aussi ñu ngi joxe lépp lu ñu am donc euh, mérité nañ ko quoi. samay projet inspi lenn la muy gagné flow up ci biir 5 millions yooyu noonu ma def ci samay projet aussi. gën a màggal sama bopp aussi def samay projet nekk samay activité aussi def ay son def ay clip aussi ak ay projet parce que nit ku nekk da ngay bëgg di gën a évoluer même bu dee moyen moyen amul tamit nga def say son di tëmbal YouTube ou bien nga def ay clip yi nga tollool niveau ba keroog ngay am euh, li nga xamante ne moom nga moom nga tollool parce que nit da ngay def ndànk def par benn benn ba yegg fi nga jëm mënoo jóge ci un dem ci cent boobaa da ngay pëtëx ni ko doo di waxee yaagee da ngay pëtëx mais man euh, yaakamtewu ma dara sama life maa ngi jël sama temps di def far ndànk-ndànk ok oh nekkeelu tàmmalee ci one two day three four ma ci xëy di goon tout léegi doonatul faw D-Freezy, my number one. Oh, lo difícil, la idea sama flow. Para el dacia sonão, dai bilhões comigo selo, nigo mole tip selo, def ko ti so servo. Ladies di gentlemen, man lus a girl fan, li may def ci BR, musuko gis fan. John nga understand, bagali gene ci ten, li may def xaju sa brand D-Free my sama name. Dañu wuté duñu ben, li may def mo la yeb. Pare maa ngi ci sa game rap, girls and nigga. D-Freezy the number one lady. ki nga doon wër ci beat bass mélodie man la maa ngi nii di music man la maa ngi nii music yaa